lit Sénégal wax ne élection présidentielle nañ gën a fonk ci élection législative mais en vérité législative moo ëpp doole président ci réew ndax ñoo koy wotel loi ñoo koy wotel budget ñoo koy jubbante sax bu tegwul ci yoon ñoo koy àtte ñooy àtte ministre yi ñooy def lu leen région bu ñu bëgg créer wala lu ñu war a créer kon loolu dama bëggoon Sénégalais yi xam surtout waa Kaolack xam loolu ñu ñëw woote ji te ñi tamit ah ñu xam ne tamit dañ leen a pour ñu dem nekkal fa waa Kaolack ndax parti faru leen ay Kaolack waa ñu jóg benn benn pour dem woote ji man sax dama doon wax ci réforme yi ñuy def élection député sax dañ ko war def élection personnalisée yow nga xam ne da nga war a jóg pour voter nit ñi xam ne yow lañ tànn assemblée bi di décentraliser wu bañ a nekk rek uniquement dakaar waaye li ci ëpp solo rek mooy eh, ñu voté ci jàmm élection bi am na ci jàmm wax dëgg yàlla li ci ëpp solo mooy confiance bi nga xam ne nii eh, eh, électeurs yi am nañ ko ci administration yi parce que ren moom dégguma fenn nga naan ña ngay sàcc fële wala ñu nga dégguma ko bokk voilà kon dama yaakaar ne nag li ci des rek mooy suñ paree nag Sénégal reposé nag dem liggéey yi parce que jàppale na depuis 2019 ba léegi Sénégal mi ngi nekk ci ay ping pong électoral mu ngi nekk ci ay ay ay ay ay ay xeex ay poste électoral ay élection réew mënut a dëkk ci loolu te yeneen réew yi ñu ngi développé daal. waaw dama ne élection yi dafa am lenn rek lu ma ci jaaxal mooy ñun ñëpp dañoo yaakaar ne transhumance jeex na transhumance mooy lan bu fekkee da ngaa ñëw ne man kat yoon wii ma jaaroon xam naa ne baaxul. léegi damaa bëgg a jaar ci yoon bu baax bi la ma randaloon ma delluusi ko kooku mën nañ ne luñ xam la waaye bu fekkee damaa ñëw pour làqatu ba la ma randaloon duñ dal sama kaw ma continuer di randalaat kooku moom la Souleymane Ndéné doon wax ray moo ci jaar ndax alquran moo ko wax yabqawna fil ardi fasadan an yuqattalu aw salabu aw tuqattama ay dée bu at bi min xilaaf yàlla fi mu ko waxee sax dafa met ki nga xam ne ni daal day yàq alalu nit ñi dañ ko war a rey wala ñu pendre ko loolu mooy li am ah ñun nag amoon nañ yaakaar ne loolu dana jeex waaye nag xamuñ lii ni mu demee ndax président Ousmane Sonko di bopp nee na woowul kenn nit ñi nag ñëw nañ ñëw nañ nag nañ xam nañ ñëwee j'espère que nag buñ paree élection yi nag vraiment ñun ñëpp taxawoon jàpp bu dee la fi nekkoon moo fi nekkaat rek ñëpp dañuy jogaat nekkaat ci lañ nekkoon du am benn njariñ ndax réew mi ñëpp sonn nag wax dëgg yàlla nañ ko nangu